pour dàq ñu génn cité bi mhm. ñu résister ba mhm. nu ñu jàppee am ñu ñu jàpp am ñoo xam ne jàpp ñu leen mhm. mais ñun moom buñ fay dem objectif mooy dem gunge woon Sonko mais bu ñu fa demee bu gisuñu euh, lu gisuñu lu ñu neex waaw gisuñu lu ñu neex après par la suite si la ñuy xeex ak policiers yi ba ñu jàpp ñu quoi. d' accord ok ñu jàpp leen euh, dugal leen fi nga xamante ne ni euh, moom mooy euh, ci biir auto police bi ba nga fa fekkee woon tey bañ la jàppee ba yóbbu la fa da nga faa fekkoon ñeneen ñi nga xama xamante dañ leen jàppoon si manifestation bi. waaw waaw fekk naa ñoo xam ne dañ ñu jàppandoo woon ñu bëri. Mhm. si manifestation yi ndax bu ñu ñu jàppee yóbbuwuñ ñu direct ndax bu ñu jàppee sax dañ ñu jàpp dugal ñu si blende bi commencé assaar na wu si commencé assaan yu ci seen kaw torture ñu doon nañ fi ay torture yu yu waar mhm. waaw maa ngi fàttaliku sax am na ñaari étudiants yu bokkoon si si si suñu groupe bi mhm. ñoom dañ leen dóor dóor yu métti mhm. dañ leen dóor dóor yu métti ñaari étudiants yooyu noonu dañ leen dóor dóor yu métti ba gaañ leen waaw léegi bu ñu dóoree si biir blende bi jàpp ñu yóbbu ñu yóbbu ñu police foire bu ñu yóbbee police foire ak suñuy blessure ak affaire yooyu noonu bu ñu demee commandant bi sax maa ngi fàttaliku lii lan la quoi moom da ko mhm. jaaxal. mu laajte waaw nan la mun a demee nii ñun ñëpp di nàcc. Mhm. léegi nit ñi ne ko euh, euh, waa ñun ñoom yóbbu waa GIGN la. d' accord waa GIGN ñoom ñoo leen yóbbu ñoom ñoo ne ko carrément ñun ñoo doon xeex suñu biir. yéen yéen a doon xeex si seen biir waaw ñoo ba gaañante. Mhm. ma ne ko loolu c' est loolu mënul nekk yéen ñu doon torture assumer leen seen responsabilité. d' accord par la suite la ñuy dem dugg bu ñu duggee. Euh, ñun si jàppoon mooy booy étudiant yi da leen dóor ñu ñu toj seen yi ñu kii seen rëkkal seen loxo yi. wala mhm. si lañ dem euh, hôpital Samy. Mhm. mais yow bokkoon nga ci ñi demoon wala yow demoo woon. non man bokk ma si ñu demoon. parce que man amu woon boobu noonu. ok wah man ma mais buñ ñom buñ dem démé sax da leen doom torturer wat mhm. parce que ñom dañ né ñun pourquoi comme man luma né mhm. wax commandant bi ñun ñol yeen leen torturer pourquoi ñun ñi wax lolu ah d'accord ah ok euh, comme ñom euh, comme ñom tay dañoo bëggoon ni ñom euh, li leen jotto na wona wax yeen ngeen affirmer bu lolu mais sans pour autant yeen ngeen wax li leen jotta dund ñu jotta dund mais nak ñun dañ taxaw wax dëgg bi da leen carrément dañu doom torturer mhm. te lolu du yoon léegi nak par la suite bu démé euh di dem hôpital Euh, ñoom subiraat nañ foofu ay torture bi ñee demee hôpital waaw yéen dañ leen doon euh, torturer dañ leen doon torturer waat léegi bu ñu ñibbisee lañ ma koy wax bañ naan ma sax yow am nga sens soo demoon du baax si yow mm-hmm. parce que yi ñu ngi la doon laajte nee na yow yaa doon wax foofu commandant beeg affaire yooyu quoi mais nag mm-hmm. man xam naa li tax ma ma ma ko doon wax mm-hmm. ndax man dama jàpp ni Sénégal fii torture Euh, dañ ko fi banaliser quoi war war war waru fi am mhm. ndax niki su la jappé nga def même so rayé ni sax war na la mëna japp djébal mhm. le la mhm. juge suy àtte lu mu dogal ci yow nga xam ne yow loolu sa faute la yaa ko def mais torture mom dañ koy ok ñu jël leen yobul leen fi nga xamantene mom moy mooy euh, brigade gendarmerie bu foire ñaata fan mom ngeen fa def bala ngeen di jakarlo ak ki nga xamantene mom moy procureur waaw ñun am nañ retour de parquet def nañ 6 jours 6 jours retour de parquet bu ñu xëyee foire dañ ñu yobbu central bu ñu xëyee central ñu yobbu ñu cave ñu war a jàkkaarloog procureur. si biir jàkkaarloog procureur bi am na ñu jot a jàkkaarloog procureur ñoom ñu mm-hmm. defeere leen. d' accord franc grand délit mm-hmm. mais ñun dañu delloowaat retour de parquet. ok bu ñu dellu si waatee. lu ñu leen toppee yéen a ko def. Mm-hmm. ñu ne ko ñun defuñu dara. d' accord mu ñeen ñu ne ko lan lan la ñuy mu ne trouble à l'ordre public manifestation non autorisée ñu ñu ñun defuñu ko mhm. dañoo mhm. demoon gunge sonk té mhm. lolu pour man euh amul benn loi bu ko interdit nonu mu ñu da ngeen di jall ñu ne ko lu ñuy ñuy jall jàll pour lan lan lañ def mu nañ da ngeen dem jall xaar mu na leen da ngeen di defee da leen di defee da ngeen dem tok xaar ah légui ñu ne ko ñun légui suñu démé kañ lañuy taxaw mu nañu da ngeen dem tok xaar instruction la seen nonu rek waaw kay bu defee ñu

woon koor. Mhm. même pas dix jours ñu jàpp ñu. Mhm. bu ñu demee nag woor lañ dugaale rëbës. woor ngeen dugaale rëbës tamit heure bii la. Mhm. presque si vingt heures. presque si vingt heures. bu ñu demee fekk na nit ñu ndogu. ñu dem euh, ñu euh, bu ñu bu ñu njëkkee yegg sax. dañ ñu dugal futtuñu. futti leen ba pare futti ñu ba pare mooy comme gars yi duñ koy defee futti la comme sa yaay juree. ñëw xool ndax yoroo ay ak affaire yooyu noonu. bu ñu paree si loolu ñu wat ñu. bu ñu watee ba pare ñu yóbbu ñu ku nekk ñu détaché yóbbu la. départager ñu ku nekk sa chambre mu nga waroon def. Mm. man maa ngi fàttaliku man chambre 11 laa rentré. chambre 11 ah, moom nga rentré bu fa ñëwee chambre boobu chambre mineur la sax. Mm-hmm. mais chambre bi feesoon na del del del del. ak ay nit ak ay nit léegi man bu ma li ma gën a impressionné mooy bu ah. ñëwee. Mm-hmm. dugg mm-hmm. ñu ne ma dugal ñu ibbi ñu ne dugal dañu ibbi dugg ñoom ñu tëj. léegi yow soo demee garde yi euh, chef de chambre yi. ñoom ñooy gérer chambre bi ñoom ñooy. d'accord lycée. bu mhm. laaj la si tur bind la ba pare la dama dama toog. d'accord d'accord mais tey Moussa euh, sa premier guddi. biir Rebeuss. noo ko dundee parce que tey ku nekk xam na ni euh, foo musul dem mhm. ñu jël la euh, yóbbu la fa mhm. pour une première fois waaw métti woon na xam la moo tax mu métti tey un père de famille boo xam ne tey dem na ba toll si yenn âge yi ñëw ñu jàpp ko amuñu fenn fu ñu koy yóbbu lu dul di ko ay xale yu ndaw paqueté ko lu ñu naan paquetage

man tam ma njëkkante yéeg pour man mbaa yow nga tëb en tant que bees waaw kay comme man jàppoon naa ni mhm. fii tëdd bi du yomb ku dof dof doo tëdd dégg ah. naa ñu naan des fois am na ñoo xam dañuy toog d'accord man bu ñu nee yéeg rek ma njëkkante yéeg mhm. ndekete foofu mooy daj dëpp bi d'accord waaw léegi bu ñu demee ñu mhm. paqueté ñu ndax nii ngay tëddee kii day tëdd côté wetu keneen ki ñëw teg boppam wetu ñu ñëw euh, jël seen tànk yi buus mu sës keneen ñëw roof. te noonu daan ngeen koy jàppee ba keroog ngeen di yeewu. waaw noonu lañ koy jàppee léegi nag man. Mhm. comme tàmm ma ko dem naa ba ay côté une heure du matin. Mhm. sama tànk yi crampe. d'accord ma xam ne fii lii mun ma mun ma koon ne ma jóg. Mhm. Euh, taafantaloon ndëpp bu nga dem sawi. mais bu ma wàccee si lalu weñ bi. bu ma wàccee nag sama tànk bi sirit bi deret bi doxul dama wàcc rek daanu. d'accord bu ma daanu si ay nit. chef de bi sax maa ngi fàttaliku mu ne ma yow looy def nii commencé amoon ak commencé am yow looy def nii. si kaw mhm. nga daanu affaire yooyu ma ne ko yow après ñu xaw a jàppante foofu quoi. Mhm. ma ne ko yow yaa ngi ma paqueté fii. Mhm. ma wàcc man dinaa tey daanu si nit quoi. ñu xëccante foofu. d' accord après ma looy def ma ne ko damay tuur ndox mu ne ma tuural ndox nga yëg. ñoom loolu la waxee seen wax du neex. d' ma xam ne tey. natt la quoi. ma dem def lu may def jëm yéegaat. Mhm. ñu ñu paqueté waat mais mhm. mhm. euh, que euh, yaa ngi koy wax sànq nga ne da ngaa jékki-jékki euh, sa tëddin bi xawoon a métti nga wàcc dem tuur ndox ñëwaat mm. mais tey bi nga tuuraatee ndox ñëw dama faa fekkat sa place wala da ngaa mujjee def comme tey ñenn ñi parce que souvent dañuy dégg ñu ne bu fekkente ne da ngaa déplacé wu ñëw sa place moom da nga koy ñàkk waaw man sama place moom bu ma ñëwee perte naa ko

boobu après si la ñëw dugal tànkam puus puusal ma man ma wetu dugg tëdd. mu dugal tànkam si di si di si diggante nit ñi ba pare quoi def nii riisu noonu affaire bi écarté wu tuuti mun ne ma dugalal sa mbagg ma dugal sama mbagg man tam def nii tëdd léegi guddi bi métti woon na trop mais bu ma ñëwee bu ma jógee deux jours trois jours ma comprendre mm-hmm. ni fii affaire de bandi la quoi. affaire de bandi waaw yaaram yow loolu nga gis waaw yaaram bi doxul quoi. ma changé. Mhm. Euh, léegi tey lan moo tax euh, nga ne foofu noonu affaire de bandi la yaaram bi doxul. waaw ndax dama gis après nu nga doxee lu ñu naan soo ñëwee si kër. Mhm. gis ñëpp def euh, yaramu neen mhm. ma gisee lu dañuy jàll jëgg sa kaw. ma ñëw troisième jour après tëddaan naa si kaw. troisième jour ñu ne yéegal ma bañ a yéeg chef de ma yee yéegal ma ne ko du ma yéeg. comprendre affaire yooyu ma ne ko fii laay tëdd comme nit ñi quoi ndax si suuf moom mooy rang bi quoi ah foofoo tane daal ci yow foofoo tane mhm. ndax foofu nu mu deedee di nga mhm. mun a tëdd jaaxaan ndax yéen ngay wetu ok di nga a tëdd jaaxaan quoi mhm. yenn mag yeeg yooyu noonu ñu fa xaw a yàgg lañ fay tëral d'accord ma ko man du ma yéeg quoi du ma xale bay yéeg si kaw affaire yooyu mu ne ma da ngay yéeg ko ma yéeg ñu xëccante mu ne ma dama lay fëggal porte ndax foofu yow foofu ñoom garde bi loo def. Mhm. lu jaarul yoon ñoom amuñu droit dóor la. ah d'accord chef de chambre bi moom ah, day fëgg porte garde yi ñëw mu boole la ñoom ñu dem ñu torturer la soit ñu sanctionné la miite la. Mhm. yóbbu la beneen chambre wala dara. Mhm. mu ne ma dama lay fëggal porte. ma ne ko fëggal porte yi affaire yëpp. nga wax loolu. waaw mu xam ne man sës naa. après mu bàyyi ma ma tëdd suuf quoi. noonu laa def ba imposer tëdd suuf. par la suite

à 11h. Euh, mhm. euh, suba. 3h mhm. à 5h. dëgg la comprendre nga. 15h mhm. à 16 euh, à 17h. léegi ñun bu ñu génnee en tant que patriote dañuy toog. pour waxtaan. ñu def fa deux mois. kenn wax ñu dara. d'accord yéen ñëpp ñu ne ñun foog ñu def foog ñu mëne benn acte. ñu acte bu ñuy mëne. mooy. dañuy def grève de la faim. yëglu quoi ndax suñu ñu bàyyee fii dañuy fàtte. d'accord. ndax gaa ndax prisonniers yi sax loolu la ñu doon too tooñee. Mm-hmm. ndax boobu moment boobu ñu ngi doon bàyyi ay quelques euh, bandits. Mm-hmm. ay malfaiteurs di leen may ay liberté provisoire. d'accord di leen libérer daal. mais ñoom ñooñu doon moqué nan ñu yéen fii ngeen di dee après élection yi rek. ah d' accord ñoom ñoo leen doon tooñ di leen ko doon def euh, euh, comme genre ku leen doon kaañoo euh, ñoom ñu ngi dem mais ñoom dañuy des ñun ñun ah, ah, di des mais ñoom dañuy dem waaw kay léegi ñun ñu ne ñun foog ñu mëne benn action ñu mhm. waxtaan su bi mhm. ne ku nekk duggee sa sàmm day dem sensibiliser parce que fa nekkoon d' accord maa ngi fàttali